ñu seetaan ku leen yee ak ku leen xeeb ku leen xamal ak ku leen taal li baaraam teel ku bàyyi nit ginnaaw li nga xamante ni moom mooy liggéeyam ak li nga xamante ni mooy ngëm-ngëmam day am li di dëkkuwaay looloo waral daal di xalaat benn émission ñu waxtaanee lépp loo xamante ni dafa daal di concerné wàllu askan wi maanaam seen dundin seen nekkin environnement société lépp loo xamante ne daal askan wi dinañ ci gis seen bopp ñu daal di koy andi ngeen si ànd ak Mor talaata bu nekk ci cappaandaw émission bi ñu daal di jox seen conseil du jour boo xamante ni nit ñi dañ leen di jàngal benn mbir boo xamante ni dinañ ko mën a ngir gën a mën jongal seen nekkin tànn benn commune ñu war waxtaanee gestion commune boobu nekkin bii la fa nekk ak jafe-jafe yi nga xamante ni am na fa. may